demel sa muy Samba Lawbe. Ndiaye landuloon waaye ki nga xam ne kit mooy maami mooy maami mooy maami xaar kumandoo fien ak semu muy bërsit kumandoo fien bañ ko ne am na ngànnaay yu mu garde moo bañ loo la ni góornóor amul mun ko foo ko teg mun ko doomi buur laa mun ko da ngay garante sa manto su amul ñu rey la kooku bërsit kumandoo fien moom lañuy ñuy màggal ci siin te sëñ Abo Mbacke doomi si Ahmadou Fadal Mbacke xalifa bi dafa dem. Mm. Euh, dégg nga. Mm. tubaarkàlla Jóob. Mm. sëriñ bi. dañ ko yàgg xeex. boo déggee ñu naa bu neexoon du dem géej. mooy waxin la. ak dégg la laaj. mbër mu mu neex doo dem ISRA. tikkil sa ngemb. du tee ngay mbër. waaye soo bëggee doon mbër ëllëg. yàlla samp te kenn du ko fel fo jaar nangu mom la señ bi wax motax ñu ni bu ko neexon du dem geej deegal deug la waye demu geejam gep solo deegal lu bari da cee laxasu man Cerno ibrahim ndaamal daru musi di mam mami man Cerno dégg nga lim wax si Cheikh ibrahim Fall mami soxna Awa Gaye am lu mu dese woon bi señ bi dem waye dañoo di listikhar magna serigne touba nak du daa magal mag ña mm. ndax ba muy dem mm. saa saafar euh, euh, euh, dëkk sarsaara ci Mauritanie ba mu waree ngëlëmam ma mm. dañ ko dam ne ko Faatumu du maam dëkk ko njaga isa jiey macha allah guddi jóob di maam ñu wàccoon ndakaaru ji day am na gan mu ne lu ñu ko góor mooy sama listixaar nangu na dinaa dem ak jàmm ji ba jàmm moom la Sëriñ Tuubaa def te soxna dégg dama wax ne la. Mm. li Diop wax wax na dëgg sëñ mm. Bamba. Mm. daa bëggoon ëllëg. ku mu la yey la. moo tax buntu bu ni mu fëgg ko. mooy werdi yi. Mm-hmm. mooy werdi yi. yeexal na werdi yi. Mm-hmm, mm-hmm. ëllëg la bëggoon nag ku mu la yey la. muridilaay jaam bu jëm ci yàlla. la wax. sëñ Tuba waxul te yaan waxul kenn. te dama su wax la ne la. bi mu jógee ndar bay ñëw. ndakaaru lu xew na fi. moo tax maam Alaaji Maalik kenn du moom. Mm. da nga wax léegi ni. Mm. màggal. Mm. bu nu jógee ci màggal gi ngeen ni. dem Tiwaawan dem Tiwaawan. ñaare deret yu lëngoo kenn meññi leen. dëgg leen a séddale ki penk ci soowu. dëgg la kese. mu xaadir Moustapha. ndeysaan maam Alaaji Maalik maam Serigne Mansour mi dem barki démb. ndeysaan ndeysaan da ko ni demal soowu jant. dëgg la Cissé. maa nga penku. ndeysaan lépp lañ. moo tax Cheikh Ahmadou Fadal Mbacké. ñaari xalifa yi Sëñ Tuubaa daan toog ba mu nii. waaw maay Sénégal. Mm. sëñ Bamba ma jur Alaaji Maalik gi samay dara di ci tubi. téye naa lépp wallaay wallaay wallaay macha allah macha allah. la wax ko nag musoo bi la. loo wax léegi. Mm. ñeent fukki maam ak lan. Mm. ak ñeent ak ñeent. ñeent fukki maam moo doon diggante Seex Ahmadou Fadal Mbàkke ak Rasulullaahi. ndeysaan ndax musoo bi la. ndeysaan ko jur jaa. ko jur awa busa. ku jur awa busa Mamadou busa càmm ñël soxna yaara busa. moom la ñu dénk ko soxna Mati Ñaŋ. maam Ousmane yor ko. maam Serigne Mansour mi jur afe sa jolof xam ne sëñ Fallou du juddoo fenn wutatu sëñ Touba ñu jox ko soxna Mati Ñang moom awa bu sa mm-hmm. dama laa toujours ni la màggalu Touba mm. bañ ko dalee màggal du tey mm. waaye mbër yi daloon Seex Ahmadou Bamba mm. kenn ku ne foo woon nga ni dootoo am kenn koo dar ndax fees waaye ndab bu feesee ba tuuru yaakaar ni àgg nga mbalkaa nga fa te ndox déemagu ci wax nga léegi Jóob kookoy maam yi soxna Ndella Wade. ndeysaan mi ñuy dénk Mbaye Ndiaye. ndeysaan Moussa Abdou Diop Sam. ndeysaan ndeysaan. daana wax ni. ma du Bamba mii de. Hmm. buñ ko sosoon ab tool. Hmm. dinaa bay sama bas bayaale ko tool. dëgg day law. day law Ndella sopp nabi la. jeex na kon dégg dama wax toujours ne la. màggalu Touba. Hmm. murit bu yaakaar ni yaa ko moom nax nga sa bopp. wallaahi wallaahi barkeb Serigne Touba jullit yëpp ko bokk. ndax sëñ Bamba mi dem ci géej gi nag murit yi taxul. déedéet. lima ma la ne nag diggante fii ak Conakry nag la dégg daali déggaat ba mu joobee der ba julli sëlmal la tubaab yi xam ni ñu dem waaye ci gàcc la mission bi mission ba waaw euh, euh, sëñ Abdoulaye <laughs> kon su ma déggee seen allah ñuy sargalaat ñëpp Senbi, bi mission daf ko def étape par étape mhm. ndax soo xoolee. Mhm. ca feeñum àddina ba. Mhm. ba ci fii ngeen toll. Mhm. ca ba muy dem. dafa mel ni moom jéggiwul benn étape. ba ci wir di fa tabakalla macha allah. ba ci mag ñu baax ñi mu dégle loon ba fa tabakalla macha allah. mission la étape par waaye man li ma ci gis dëgg-dëgg. mooy siggil der bu ñuul. waaw xam ne der bu ñuul fa tabakalla allah. ñu ngi taxawoon pour néewal ko ci àddina bi. ndax amoon na jamono yoo xamante ne fa tabakalla macha allah nit ku weex. ba ci naar yeeg ñëpp dañu bëggoon xeeb der bu ñuul. ko xeeboon waaye mu mel ni jant. Mhm. feeñ na ci der bu ñuul. ñu dem ci tukki bi. waaw gis nga maa ngi ci tukki bi. Mm. loolu moo waral kon sëriñ Touba ci Zahir. fenkoom mm. ak nasaraan bi génn. Mm. dëgg la waaye ci baatin nag. li nga xam ne mooy li nga xam ni moom boroom xam-xam yee ko xam ci baatin. te bi ci gën a wér. Serigne Boukounta ko wax. ca Ndiassane. sëñ Basirou bind. sama ndijaay wax na ko léegi sëñ Basirou borom xam-xam. sëñ Basirou am na ñett ci sëñ Touba. sëriñ bee ko jur. sëriñ bee ko jàngal. sëriñ bee ko yar. sëñ bee ko jox ndigalit ni ko bindal sama histoire. moo bind biographie Xaadim Rasul soo demee ca téere ba danee xakkaa alaya ma fëri njaay ahadul muridina al muhibina zawi diin innahu kaana yawmun maa abi muhammadul kuntiyu fii xariyati njaasaan macha allah xaala wala maa xalaa binal majlisu sa alani man cheikhuka fa xultu la woo mawlaana cheikh mat bamba xaal alladi xuriba xultu la woo naam xaala yazonoona anna dawlata araada nafyi o wa taqribahu kalla ma zaaka ila sababu zahirin ama alhaqiqa fa hiya anna allaha kachafa lil awliyaay an maqaamin azizin indahu laa yunaalu ila bi balaa in min azami albalaya falam yatarasha la woo illa mawlaana cheikh mat bamba فوقعت علي المعنى كما رأيت أما أنه سيرجو ظالما إلى الزنغال وستكون البركة على يدي لمن تبعه فلا يمكن لأحد أن ينازعه فيه فسبب ذلك تراني لم أختر أن تكون تلامذتي تلامذتي من أهل الزنغال بل مما وراءه sëñ bu Kunta dani sëñ Mafari Njaay la ko wax taalibi sëñ Touba ne 1901 fekk boobu sëñ Touba tukki sëñ bukkunta ni ko yow kuy sa sëriñ ci sëriñu Sénégal yi mm. mu ne ko Seex Mat Bamba mm. mu ne ko mooy sëriñ bi nu yóbbu géej mm. mu ne ko waaw mu ne ko ah kooku wàll wi rek a ko xam nit ki ordinaire yi xamuñu sëñ Tuuba ni ko toogal ma baaxee la loo xam ne bi ma koy wax benn ki ñaan nekkul sama xol dama koy wax ndax dama koo yëg gis ko ni ko nitu yàlla ñëpp ñoo soxla woon ci yàlla benn may boo xam ne su la ko mayee su ëllëgee xeetu yeneen bépp mën ngi leen a ram nee na wane nattu yi mu ci teg mm. nee na ñëpp wane ginnaaw ni kenn attanu nattu yi mm. mu ni ko wax dëgg fa yàlla sa sëriñ boobu tudd Ahmadou Bamba mm. moo jug attan yen boobu moo tax mu yenu ko looloo ko yóbbu géej ci baatin ni ko waaye maa ngi lay xamal benn affaire dina ñibbisiwaat Sénégal te su ñëwee barke dina nekk ci ku ànd moom defaru dina nekk ci ku ànd ak moom faloog folli ku si loxoom lay nekk tàbbal nit aljana li koy yomb lay doon ni ko su boobaa nag dina am prestige boo xam kenn du ko mën a nangu ci moom ndax da koo jënd ci yàlla yàlla moom la jaay mm. ni ko man sëñ buukunte gis naa loolu mm. moo tax léegi may wut ay taalibe ci biti Sénégal mm. ndax ci biir Sénégal dinañ mujj ñëpp toppi Sëriñ Tuuba loolu sëñ bukku taa ko témoignel sëriñ Touba soo demee ci téere bu ñuy wax mi nanu baaxal xaddim mm. kon nga gis ni euh, cause bi moo nekkoon baatin loolay baatin kon ñu dem te ñëw waaw parce que yaa ngi aalu de waaw <laughs> sëñ Abdoulaye Diop Bichri xam man nag dama la bugg waa maa la raw waaw waaw looloo def parce que daal macha allah macha allah macha allah alaaj dañuy dem pose léegi dellu si ànd ba tey ak suñuy partenaire gis ngeen jus best yi ñu ngiy dëgmal loo xamante ne ñàkk am best ca màggal ga wóorul wax naa leen ko waxuma la poussière bi. ah lay bex di dindi. ah. ah ak coona. ah waaw fii ne boo ko naanee bala ngaa dugg ci oto. sa ah. oto ah. bu poussière bi ñëwee. da koy dégager. ah baax na baax na ñàkk am best wóoru. waaw best dafa wax turam sa best. waa le meilleur. waaw le meilleur. ba pare di ànd tamit ak suñu partenaire xam nga ni groupe Telium Alaaji dañu ñëw rek pour yëwénal askan bi ndax tamit kër yu am solo yooyu ñuy tabax ca bambilo cité des Akis nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dinaa leen ko ferem fàcce waat tout à l'heure ay logement la jege autoroute à péage bi F2 F3 F4 ba F5 nee naa leen waa Suisse waa waa waa Angleterre waa àddina bi yëpp sénégalais de la diaspora xam leen ni benn xéwal am na groupe Telium mu ngi tabax kër yu am solo ñooñu ñoo ñëw ci lii nga xamante ne ne moo di wareef maanaam daal ñàkk leen fréquenté erreur la dee leen xool di rapproché wu ci groupe Telium ndax mosuñoo nax kenn te da ngeen di fàttali di ah. aram ah, waaw kooku jàppale kooku suñu bos la suñu bos la mi ngi waajal màggal gi ah, maa la ko nañ dem te ñëw nañ dem te ñëw